oh massa waay frère massa massa massa massa ñu ngi lay massaw bu baax di la jaale di la ñaanal ci barke yowmal jumaa ji yal na yàlla yërëm ko mu yeggalee ndawam ca aljana ja yàlla may la xolu muñ yaag njaboot gi teg ci sa loxo loo xam ne bu ñëwee nag bii paa dina toog nag ba jëriñ la ndax yow nag ah wax dëgg yàlla frère nga boo xam ne man de dem bi mu ko déggee yéex naa koo gëm parce que man Sénégal wax dëgg yàlla seen dëj moom léegi man buñ tàggee ni dama ciy teey ndax chaque jour ñu tàggee ku deewul mais nag bi ma demee ba am confirmation yu leer que ne nag ah ah ah ah, ah, ah, ah métti na métti na mais nag euh, nii la koy sunu borom bëggee woon waaw nekkoo ci réseau yi di jal bi jalaañoo wala ngay xaawi sutura ka xas ay nit aka def yëfu dof dëgg yàlla foo toll rek yaa ngi yaa ngi dégager énergie boo xam ne lépp ngir reeloo doomu aadama yi waaw muy sénégalais yeeg muy dëkk bi nga nekk ak muy bépp yi wax dëgg yàlla zéro faute Hakim Euh, ñu ngi lay massaw bu baax te di la ñaanal yàlla.